Euh, gannaaw ba ñu santé ak gërëm journaliste yi nga xam ne teew nañu fi nii tey euh, damay présenté wu maay wuyoo ci turu Bassirou Tine bokk ci kuréel gi nga xam ne ñooy sàmmante ak ak yeleefu étudiants yi xam naa sama kaddu dama koy tënk rek ci ñetti point no quatre points autant pour moi ñeenti poñ bi ci njëkk mooy di ñëwaat rek si li nga xam ne xewoon na fii si biir université Cheikh Anta Diop de Dakar mu nekkoon nu le premier juin bi si topp euh, di ñëw si protocole bi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo jiite étudiants yi muy collectif des amicales de l'ICAD signé woon nañu ko avec euh, autorités universitaire yi bi si teguwaat mooy ouverture campus sociale université Cheikh Anta Diop de Dakar c'est-à-dire les deux campus muy campus pédagogique ak campus sociale fi may mujjee mooy rek di woo ñi nga xam ne ñooy suñu ay njiit ñi nekk université même le président de la république pour que ñu mën a ñëw ubbi université étudiants yi continuer waat ñëwaat pour mën a yeggalee yeggalee année universitaire 2022 2023 après su mu paree si loolu su ngeen amee ay laaj rek dinañu pare pour tontu leen si laaj yooyu noonu tey comme ni ma ko waxee rek le 1er juin 2023 l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dafa jàkkonte woon ak ay problème nga xam ne tey bëri woon na loo xam ne xewoon na fi mu nekk loo xam ne duñu koy ñaawlu ñun ñi nga xam ne ñooy représentant d'étudiants yi loolu ba mu jaree ñi nga xam ne ñoo nekkoon suñu ay kilifa plus précisément conseil académique bi nga xam ne tey moom mooy dogal ci li nga xam ne mooy concerné université dafa décidé woon à ce tey ñu tëj université Cheikh Anta Diop dem continuer ci ay cours en ligne loolu noonu bi mu amee ñun ñi nga xam ne ñoo yore kàddu étudiants yi ñu jàpp ko ne loolu dafa nekkoon loo xam ne arrangé wul étudiants yëpp. ndaxte defoon nañu évaluation situation bi gis que ne bëri na ay étudiants yoo xam ne fa ñu dëkk amul connexion réseau bi baaxul am ñoo xam ne amuñu ay téléphones yi nga xam ne mën na leen a permettre pour ñu mën a suivre cours yooyu noonu tey am na ñoo xam ne aussi tamit jàkkoonte woon nañu ak ay problème pour jën connexion donte loolu noonu tey administration jéemoon na pour andi si ay saafara ginnaaw ba mu lekkaloo woon ak waa Orange nga xam ne chaque weer du nuy may étudiant bi un giga de connexion bi nga xam ne dina ko mën a permettre mu suivre cours yooyu noonu tey mais même effort yooyu nga xam ne ñoom def nañu ko ba léegi mosul doy pour étudiants yi mën a suivre cours yooyu noonu comme ni mu waree ñu jàpp ne loolu noonu tey suñu ko accepté mooy ñi ngi sacrifier ñenn ñi nga xam ne ay étudiants lañ war a suivre ay cours comme seen ay moroom loolu bu mu amee amoon na tey benn dislocation entre ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon njiitu étudiants yi ak autorité universitaires yi loolu bi mu amee après si lañu toog waxtaan ngir wut ay saafara si loolu noonu tey si la ñuy profité waale di jaajëfalaale bu baax Omar Pène bi nga xam ne moom à chaque fois que problème am na université day sol dalam ñëw waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ko seq ngir jàmm mën a amaat ngir solution mën a am si problème yooyu noonu tey si lañu dajee ñun étudiants yi le ak Omar Pène ngir mën a signer benn protocole d'accord bi nga xam ne dafa tënk woon si ñetti poñ bi si jiitu mooy li nga xam ne mooy kaaraange étudiants yi parce que du ñu gis que ne université dafa bëri ñu ñu rax ñoo xam ne ñii mësuñu nekk ay étudiants ñëw dëkk si biir université mu am ñoo xam ne ay étudiants lañu woon dem ba nekkatuñu ay étudiants continuer di dëkk biir iniversité ak li nga xam ne tey nga xam ne du ñu koy ñaawlu saa yu ñu toogee ñi nga xam ne tey du ñuy dugal ay armes. fii ci université parce que bëri nañ ñoo xam ne suñu ay kilifa lañ ay autorité lañ ñuy bàyyi ba guddi jot ñuy dugg ci université bi andi ay armes di ko jox ay étudiants ngir ñu si jaamarloo ak seen ay moroom mu nekk loo xam ne duñu koy ñaawlu bu baax parce que étudiant bi soo ko mënul jàppale si livre jàppale ko si moyen yoo xam ne mën na ko dimbali pour mu jënd ay ticket yi koy mën a permettre mu dugg restaurant pour man étudiant boobu noonu tey waruloo ko jox ay armes mu nekk loo xam ne duñu koy ñaawlu lool ak te politique yi ñu ngi koy def ñu ngi ñëw si biir université di ko fi def ak li nga xam ne tamit mooy université bi ñu politiser mu nekk loo xam ne lu ñuy ñaawlu la donte tey loolu mënul ñàkk mais mu nekk loo xam ne tey ñu koy réglementé kenn ku ne respecté moroomam kenn ku ne jox ak ak yeleef moroomam nga xam ne tey ginnaaw li nga xam ne mooy politique ñu xam ne ñun ñëpp ay étudiants lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lu ñu bëgg te loolu war na mën a nekk loo xam ne tey war na mën a andi ay jafe-jafe suñu biir point bi si toppoon mooy comme ni ma ko waxee woon rek si bi may tàmbali mooy ko ne étudiants yu bëri amoon nañu ay problème pour mën a accéder si plateforme bi ñu nekkoon aussi tamit période de vacances ñu ne tey pourquoi pas avec. Euh, l'administration ñu jéem a mën a trouver solution par rapport ak problème boobu noonu tey ñu ne pour quoi pas l'administration jox ñu cours yooyu noonu tey ak ay clé USB e yi nga xam ne dinañu ko mën a jébal président d'amicale yi nga xam ne ñoom la ñu lëkkaloo woon muy président d'amicale locale yi euh, euh, communale yi ak départementale yi nga xam ne ñoom à niveau dinañu ko mën a partager ak seen ay étudiants ñu mën a réviser gun point boobu noonu di likkaloo ak point bu mujj bi c'est-à-dire remédiation mu nekk moo boo xam ne ñu bëri comprendre ñu ko te mu nekk loo xam ne tey cours yooyu noonu nga xam ne duñu leen koy jébal jaarale ko ci seen ay président campus bi su tijjee c'est-à-dire université su tijjee professeurs yi duñ siy ñëwaat ak ay explication bu ñu comprendre balaa ñuy dem di def examen mais quantum horaire bi duñu koy réduire puisque tey perte nañu ay mois yi nga xam ne defuñu cours et que l'année année bi duñu ko war a sauver ak lépp lu mën di xew mais duñu ko sauver si ngir si di lor ay peut-être ñi nga xam ne tey ay étudiants lañu nga xam ne tey amuñu tey euh, li nga xam ne mën na leen a jàppale bu ñu mën a bu ñu mën a suivre cours yooyu noonu tey su loolu jàllee ñu ñëwaat si troisième point bi c'est-à-dire l'ouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis le 1er juin étudiants yi ñoo ngi xaar pour am dat pour mën a ñëw continuer seen jàng à chaque fois ñun ñi nga xam ne ñoo jiite étudiants yi chaque jour du ñuy poser ay question kañ la université di tijji du ñuy jàpp sax que ne étudiants yi noonu dem nañu ba perdre espoir bi nga xam ne tey dinañu mën a retourner waat pour continuer waat seen jàng. te étudiants yooyu noonu am nañu droit continuer seen jàng nga xam ne tey presque dans toute l'université dans toutes les facultés premier semestre bi pare woon nañu ko presque li nga xam ne moo desoon moo nekkoon deuxième semestre bi te autorités yi suñu paree pour que année bi ñu sauver ko loolu noonu tey lu yomb lay nekk donte am na ay jéey yu bëri yoo xam ne xewoon na fi comme amphithéâtre bu faculté des sciences politique et juridiques bi nga xam ne taaloon nañu ko ak yenn euh, amphi bi nekk CESTI ak yenn euh, comment dire yi nga xam ne tey taaloon nañu ko donte archives yooyu noonu tey doyen yi gënaat nañu ko ne loolu noonu conserver woon nañu ko ci seen ay machines kon loolu nekkul problème mais si loolu noonu tey ñu jàpp que ne université bi dafa war a tijji amul leen loo xam ne tey mën naa tax ñu bañ a tijji université bi déjà li nga xam ne moo nekk pavillon yi amul benn pavillon boo xam ne taal nañu ko wala ñu saccagé ko donte amoon na ay vitrine yoo xam vitre yoo xam ne tojoon nañu ko loolu yëpp réparé nañ ko ñun collectif bi semaine passée ñëw nañu université on a fait le tour de toute liniversité jaar nañu si yenn restaurant yi jaar nañu si pavillon yi am na ay kilifa yu fi nekk yoo xam ne tamit rencontré nañ leen pour juste mën a xam lan moo nekk situation actuelle université bi ñu paree si loolu noonu tey li ñu si mën a jàng jàngate mooy que ne université bi tey mën na accueilliraat étudiants yi nga xam ne tey bàyyi ko woon nañu fi depuis le premier juin fi may daaneel rek mooy di woowaat bu baax suñu njiitu réew bi muy le président Macky pour mu mën a ñëw jàppale étudiants yi nga xam ne perdre nañu espoir pour continuer seen jàng sama naataangoo Diagne wax na ko ñu bëri tey ñii ñoo ngi jël gaal gi ñii ñoo ngi jël yoonu Nicaragua bi ñii tamit abandonné nañu seen jàng parce que amatuñu espoir boobu noonu tey je pense que c'est le moment pour le président ainsi que les autorités universitaires pour ñu mën a tijji université bi le plus rapidement possible suba incha allah kuréel gi nga xam ne. moo war a jël dogal ci ouverture université bi muy ñaari campus yëpp muy campus pédagogique ak campus social ñaari campus yi nga xam ne benn mënul dem bay moroomam sama naataangoo léegi wax na ko ci français mooy que ne campus pédagogique su tijjee te campus social tijjiwul loolu dina indi ay jafe-jafe yu bëri parce que bëri na étudiants yi nga xam ne tey amuñu benn famille boo xam ne mën na leen a accueillir fii ci dakaar amuñu benn mbokk boo xam ne mën na leen a dalal fii amuñu xaalis boo xam ne mën na leen a permettre ñu jël néeg wala ñu jël apartement pour dëkk foofu noonu tey te étudiants yooyu noonu war nañoo ñëwaat comme seen ay naataangoo yi nga xam ne am nañu fii ay mbokk ñëwaat continuer seen ay cours donc du ñuy woowaat suñu autorités yi ñu bàyyi xel ci étudiants yi yooyu noonu yëpp tijjiwaat université bi pour que ñu mën a sauver année bi jaajëf. comme ni ko sama naataangoo waxee rek ñun tey du ñu yàgg anticiper ci situation bii nii tey parce que kenn ku nekk ci ñun dem na rencontrer kilifaam waxtaan ak moom tegal ko li nga xam ne moo nekk situation étudiants yi et que ñoom aussi tamit ay parents lañu et que ñoom tamit ils sont les autorités elles sont sensibles aussi à la question de l'étudiant et ñu jàpp que ne ñoom. amul beneen dogal boo xam ne war nañu ko jël wala mën nañu ko jël lu dul tijji université bi parce que étudiants yi tey laajuñu leneen lu dul ñëw jàngiwaat et ñu jàpp ko ne loolu noonu seen ak ak seen yeleef la te autorités yi nga xam ne ñun la fi nekkal waruñu def leneen loo xam ne méngoowul ak loolu noonu tey su loolu noonu amul ñun éti ñun représentant d' étudiants yi tamit dinañu jógaat takkuwaat ànd ak étudiants yi xeexaat à ce que université bi tijjiwaat parce que tey ñun nekkaluñu fi keneen ku dul étudiants te ñoom li nga xam ne moom la ñu bëgg mu jaadu si loolu noonu la ñuy dox